benn principe certes je suis légaliste foncièrement légaliste mais parfois je me dis que le droit ne règle pas surtout quand on est quand, quand on dans les affaires parce que parfois aussi les discours politiques changent aussi parfois selon les contextes et les prétextes parce que li valable parfois ci discours opposition valable ci quand on est affaires quand on gère une administration quand on gère un pays quand on gère un département ministériel ay complication ay procédures ay kii comme ça parce que moi j'ai l'habitude j'ai constaté une chose au Sénégal il a trois ou quatre codes qui sont les plus malmenés Sénégal quatre codes lañ fi gën a malmené muy code de procédure pénale code pénal code électoral ak code des marchés publics ce sont les quatre codes les plus malmenés au Sénégal chaque année ñu malmené leen chaque année ñu touché leen code du travail xam nga kenn lañ ko jëlaal au Sénégal kenn lañ ko modifié les rares dispositions ou décrets dérogatoires yi président génne ci temps yi Covid bi. te après dafa dafa seey parce que c'était un c'était une situation exceptionnelle. exceptionnelle après dafay pousse. d'ailleurs euh, situation exceptionnelle sax décret yooyu peut-être moo indiwoon peut-être yenn peut-être licence yi pour yenn ministère yi jaaree fa def yenn certains actes qui ne sont pas catholiques que nous savons tous qui ne sont pas lucides